ne problème bu état war a régler la am na ñoo xam ne jàpp nañ ni état bi mënu ci dara parce que bu ci mënoon dara 2005 lu ko jiitu boobu ba léegi ñu ngi jéem mais sottiwul ndax ndaw ñi lañ war a gën a waxal comme yaa ngi koy wax am na ñu nekkoon Europe di mhm. wàññeeku di ñibbisi mhm. wala ñoom ñu gën leen a sensibiliser wala gouvernement bi itam gën a góorgóorlu ba financement yi. Mhm. jox leen loo xamante nii dina tax ñu toog parce li ëpp ci ñoom bu ñu demee itam. ci mhm. tool yi rek la di wa witt ay fraises ak mhm. yi nga xamante ne nii mataluñ ko te gouvernement bi nee na souveraineté alimentaire ñu jëm leen cee jàppale ñoom itam waxtaan ak ñoom ñu jéem a toog. ban waaw euh, état bi def lu mën de état boo seetee que liggéey yi ñu ngi koy joxe mais comme li nga wax ni euh, il faut que ñu jàppale leen financement yi gën a yokku parce que jeunes yi boo sekkee chaque année ñiy am diplôme dañuy yokk kon noonu la financement yi gën a yokk état nag li mu def si biir mënuma see wax parce que xawuma ko je suis pas dans l'état je peux pas parler mais li ma gis nii rek lii xew laa gis phénomène bi qu'est-ce qui les pousse ñu dem man loolu si loolu laa mën a wax te li leen di pousse ñu mën a dem mooy ñàkk liggéey walla bëgg a tekki bëgg a am dara kon loolu il faut que euh, euh, état financement yi ñu yokk ko Euh, jàppale leen wala ñu def jeune ne sais pas benn concertation avec les jeunes euh, ñu toog waxtaan si xool ñoom lan moo tax ñu bëgg dem qu'est-ce qui se passe lan nañu bëgg ak nan nañ leen mën a jàppale parce que xal jeune bu nekk am na ñoo xam ne ñu ngi bàyyi ñu ngi ñu ngi ñu ngi liggéey de am na ñoo xam ne bu ñu benn liggéey mm-hmm. cest à di que nit toujours pour nga pour nga commencer si dara il faut nga bañ a xeeb loo am jëlal mm. nga commencer nga liggéey xëy na c'est noonu la ñuy defaree réew parce que mënoo jóg rek tey ne da bëgg a nekk ministre wala da bëgg a nekk président il faut nga commencer si lu tuuti di dem di dem di dem il faut qu'on les compagne avec sa te ñi nga xam ne tamit nag dañu am seen diplôme génn na nag si université di ut liggéey que ça que facile pour ñoom pour ñu mën a am liggéey bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu mën a su euh, développer seen dëkk ba pare am lu ñu jox seen njaboot mm. parce que tamit mais ni ñu réglé problème par exemple ni xaalis bi wenge mm-hmm. pour dugg ci politique bu ñu la joxee poste léegi yàgg sa waa kër ngeen jekk ba faw mm-hmm. alors que ñeneen ñi loolu jekkal ñële xam nañ xaalisu mbooloo la. parce que tëz ngay laaj te jaarale wuñ ko yow bàyyi ko man <laughs> mais intellectuel la. Ah. waaw <laughs> waaw nag xaw ma leader la. waaw man da xaw ma wala xaalis dafa man xaw ma wala xaalis jàng na de. <laughs> Mm-hmm. wax dëgg yàlla mënu ma see wax xaalis bi jàng na wala jàngul. man daa xam naa ne daal li ma xam mooy jeunes yi tout le monde ñoom ñëpp. il faut ñu jàppale ñu bëgg def agriculture ñu jàppale ñu def agriculture ñu bëgg def élevage ñu def élevage ñu bëgg def journalisme comme ñoom ñu def basket ñu bëgg def tamit basket basket daanaka amul xaalis parce que mm. bu lu professionnel ah dara doo ko am moom mu ngi ah. noonu bëriwul xaalis bëriwul xaalis mm-hmm. alors Mor euh, rapidement sur euh, question euh, immigration clandestine bi avant ñuy ñëw ci ci li bi